Passionné d'art et d'artisanat, découvrez les meilleures œuvres de nos créateurs locaux disponibles sur www.awalibis.com et faites-vous livrer partout dans le monde. Matidi.com Gold, une nouvelle vision de la bijouterie. Ideal Style. Binouchka, l'élégance authentique. Babs VIP, Divine Lingerie. George Chic Couture. Grain de poupette. MK Besta, Yamina Collection. xalé bi sama digg xol bi la jam ba may umu cham ba tay musuma am gàcce gu tolni umu gis nga Fat Bintou Ndiaye xalé la gis nga xalé bu fi dara tam day tang lolou kessa la way du lenen ba pare nak bul faté suñu dom da ko fassé lolou rek mën naa nekk xolam il faut nga dawal compréhension yow tamit Fat Bintou Ndiaye daf ñoo neub bopam ba dugg guddigo gis nak dina mës te xale nag tant que nekkul ci ay jafe-jafe mënoo xam mooy kan xalil toogal yaay ba dem kër faa ba ñëw Fat Bintu lañu dem këram ndeyam toog ay mbokk ndeyam toog fat bintu khasma khasa xasa xas ba ma ràpp bi may genn ci kër gi xawma ma fan la jaar ndax gatché yaay fat bintu ñaay mo def loolu lolo am um lolo contexte la rek te lo gis aduna contexte da ca am kuri mayma khalil cham yow du fase fat bintu kon baxna len nak nag ko xamal man mi dematuma lijjanteetuma ila yow mi Fat Bintou Ndiaye dotul nekk ci sama goro yaa ngi may deg bu baax yaay xam naa danga mer rek mais est-ce que yaa ngi bu baax li ngay wax dama ne barki yalla la lay wax Fat Bintou Ndiaye man ak mom jeexna tak tàkk bàjjan sama yaay limi wah wax ni diis na torop yi laay dina oyof dina oyof tolu ba melni ni ci bop aduna lu dis yag na fi waye lu mu yag yag yag bànneex lay muccu soo tëddee na nga nelaw da xam ne na nga amé ndey non nga amé ba jatt dañ ci ba mu nooy xel ba ñu dem eh kay yobul sa chaîne ngi yaay Fatou Binetou moo tekki chaîne bi jox la ko. yaa yenoo yenoo yenoo yenoo ba dis gan ah kii lekkul naanu ay nelawam doyul nga war a xëcc sa doom takk sa dënd bii déchargé ko amoo looy def lu du jàpp xale bi sëf ko ba mel ni lu kenn xamul nii umu yow est-ce que yi est-ce que mën nga maa dimbali may ma jàmm man man ma may la duma la may de kon yombee noonu waxuma loolu yow la ñu jëlee ci kenn ñoom Fat Bintu Njaay may li Fat Bintu wax yow umu yow yaa wut sëriñ ci sang say doom ba mu neex comme niko yaay yep di defé sang samay dom ba mu neex du yaangi nonu yoré yore sa ponkolu mamu béjjën sama béjjën dama ma laaje ma wax lako waye waaye li xalil caam waxoon diggu caameen gee da nga koo confirmé dayam newuna nek na néeg dugg rek fek nga fa butéel eh waaye ndaw samba li nga sama béjjën bi mo nga bëgg xam pour lan la di ñëro du leneen lu du lolu kon bok yes ñu bëss bu toll <laughs> waay nit nak mo lëndëm nit a lëndëm deug deug dëgg ummi dal ya sàngoo màjj ba ci say yeel allahu akbar Tidiane dama bëgg nak tay ñu waxtaan waxtaan mi waxtaan ak yow man mi di sa wajur sax neexuma deug la sa pap dafa nekkon torof torof jafé jafé jafe yu metti hmm. nattu nag laa ko mën a tuddee ba dugg kasa xajoon ci si moom mi toog si la sa jàng yàqoo yow man mii di sa waajur si laa ñàkkee lépp lu ma waaye taxul ma réccu ko de réccu ma ci dara nag kase ndax mooy sama bàyyi doom moo tax réccu ma ci dara su ma sañoon nag doo ko mës a yëg lii su ma sañoon du mës a génn sama gémmiñ ji di ñëw ci yow waaye dafa jot pour nga xam ndax bu dee doom nawle la waajur sang la ci lu wér ñun nag ñoo war a xool fi ngeen teg seen tànk waaye bàyyi yéen ngeen xool ñun fi ñuy teg suñu tànk ak fu ñuy aw dégg naa ndax su ma sañoon moom waxtaan bii du ma a am e duma ko mës a yëg tamit waaye li am am na ba pare te dégg naa tamit li nga def ndax jigéen bu baax rek moo mën a def loolu et aussi pap maa ngi lay ñaan nga jégal ma baal ma wax bu baax Cheikh Tidiane sama diggante yow ak amu ci baal naa la ci xol bu sedd guy li ci des nag sa liggéeyukaay la muy sa wàllu napp bi xam naa fu napp bi toll ci yow waaye damaa bëgg nga xam ne marché amatul dara dara dara neexatul ba tax na waxoon naa nag ak sa nijaay Sadix pour mu xoolal ma ci mbaar ma fu mu la fa mën a teg nga jàppandi fa te du la yàqal dara sa liggéey liggéey. yaay. bu ma yaay defal ma man li ma bëgg. Madame, madame. ça papa. Wafa. yaa ngi armé de. lan moo tax nga wax loolu. damaa xam ne kat yow balaa ngaa mën attaqué rekk nga sàjj ba ne gongo. xam nga la moo ma neex ci yow dag maa xam. waaw dëgg la. Fatou Bintou dangay génn. waaw. foo jëm. dafa am benn affaire bu may gérer vite fait rek après ma ñëwaat. ah. Mhm. d'accord. waaw da ngay avec avec maman c'est pas normal Faria, Falia day lijjanti lu sa yoon Excuse-moi, je suis désolée, je suis juste pas d'humeur aujourd'hui. Non, non, tard. Oui, a une autre waxtaan ak Jojo.

allo nijaay Mor. waaw soxna jooja. nijaay Mor démb woo naa la ba sonn. a ah, nekkoon ci sama yittey bopp rek tamit du yow rek yaay client yi. dëgg la kay waxuma loolu yëpp nijaay Mor sungu fi mu ma joxoon pour yokk kàttanu monsieur fi mu toll nii dafa jeex dama ko soxlawaat faw mu amaat ko tey. yow kañ ni woon naa la nga jël ci ba ñetti yoon. léegi nag mbir yaa ngoow. xaalis amul problème nijaay Mor dinaa yónni livreur bi joxaale ko sa numéro. livreur. livreur wa da nga bëgg ma ñëw fofu mariam di ma gis mukk oh, ci aduna wa na taa xiirlu comme sunguf comme sunguf bi yow rek lay xaar moom wa baax nah. allo Jojo, c'est Falia, ça va ban Falia. Man ma un produit intimité yu RC sur, sur Snap. Ah d'accord. Ça va, ma chérie, ça va ma si bon voilà demande un voyage bu Je Je dama euh, voyage, faire du coup est-ce que mon nañ gise comme ça mon le produit. fan nga bëgg ñu non yu choisir fu la rek. d'accord légui xolé da ngay sama cœur. amul problème léegi yow nag sa localisation rek ma ñëw inshallah wa d'accord d' ngi lay envoyer localisation bi rek par WhatsApp ok. papa sa téléphone mi ngi doon sonné léegi Laipin mo la doon woo. <laughs> xoolal plan baa do ko commencer nak.

te kenn sonalu ko ci ay waxu doom wala chaque jour ñu ko koy rappeler ou ce genre de chose là man daal man la ñu yëpp maa ñaaw yaay moo tax ñu ma ko doon fàttali tout le temps. jéem creuser foofu tamit nga cuuj fii capp fee su ko defee ñu jéem a am le maximum d'infos par rapport à tout ça. ah man nag yaa ko doole bu dul yow bëgguma. <laughs> Fall yaa yow waaw wuy ma abal ma sama néeg damaa war a sol yéen yaa ñàkk sa nag maa ko def sax moom mi la ko laaj merci beaucoup. waaw Alo, Hello, lie. Nagomunize. Ah. ah, jeli ke munul def lu dul kontaan si commande bi. Wa ban na léegi yow jaaral gaale si kanam ñu waxtaan si. waaw ok lai léegi. lay ma doy war. papa. ah. lii lan la. pour jural la dom. lan mo la changé loo avis. papa dëgg la de am naa ay dut ba léegi mais wóolu naa la te xam naa ni dooma bàyyi te dooma seetaan aussi. Hmm. fais-moi confiance pilule yëpp mi ngi nii ma jox la te papa maa ngi jégalu bu baax ci sama comportement fane ak sama xalaat yu ñaawi yow papa bu baax nga loolu moo tax mu yomb ci man ma lay wooye papa. vraiment kontaan trop léegi wax ma lan nga bëgg ma defal la ko. Mm-hmm. kenn laa bëgg a daal. comme que da bëgg doom. ñu demee commencé foofu liggéey. Ah, loolu moom dina ma neex trop. donte am naa tuuti réglage sax yu ma war a egg par rapport ak euh, commande. dinaa xool nan laa koy kale ba nu dem ndax nag namm naa sa wuyu te nag danga maa commencé min temps yi faaw ñu léewtoo ma nag. Hmm. ah ma def loolu métti <laughs> mais est-ce que xam nga benn hmm. jël yu doy war laa jëlee. jëlu lan yaaw. xaaral ma ñëw yow ay affaire de combat da nga koo bëgg de. <laughs> Loum ça waaw ça xale. naka mu. tu vas looy togg. xanaa lu saf rek. man ci saf rek laay doon. c'est bien. ma li te nga ñëw toog. naka mu deugante nga ak sa yaay wa deugante nañ bi alors papa set, na ba set mais yakana ni li gën mooy ñu bàyyi nga ni pour jam mëna delu ci si kër gi fi ci ëttu bi li gën moy man ak fat bintu ñu baña delu yow xam nga li gën wuyu ma yow lay waxal yow mi jël décision soo meree na lan la la yonanti bi sant saa yoo meree nga jàpp ba sel julli ñaar rakk xaar ba sa mer giif nga soogay jël décision ah kon xam nga ni loo def yaa ko tey et pourtant démb rek laa jàpp sa loxo ñu dem armeel ya waxtaan ma yebal sa yaay mu waslu ji àq nga tok tay nan ma li mo gën ak lu gënul comme yow mi gone ya xam li gën ak li gënul ah dama bëgg nga abal ma waaw comme xam nga li gën ak li gënul dama la sa bop man dom dang may jox cër man nangu ko soo ma joxul cër yow la hello hello la famille way mu caab mo yow mom sa séminaire bi gawa jeex yow de yàggoo fa yakko séminaire bi mënuma foon yag alors que sama xel bi yëpp moy won fi pour équation familiale bi mo war résoudre. mune rak ça ji sa jabar dañ ko tek dil Fa est victime d'un commentaire, monté mais dina ko résoudre dina ko résoudre oui. Tu as compris yagatul nak nga ne looy wër yow ibnu Thiam. Nabou te jël sa gémmiñ ibnu na leer dootuma dem benn séminaire dinaa jël logique bi taaj ko ci ëttu Babel mu leex ñëpp ko xam lu waay bootee doomam golo ah golo oui golo. yaa ngi sol sa dàll bul ma lu xëy doo indi logique ah nga ëñ sa tubay bii xoolal rek xoolal lii rek ibnu man nga nag sa lépp a marqué mu nekk nii.

lii laa xamoo la mhm. moo tax Pape Khalil divorcé moo tax nga may laaj loolu ah peut-être que Faa dafa defati lu ëpp rek mu fase ko loolu rek la lii lan la boo ko ubbee xam ko eh mu yéen Je tu crois que ça va marcher. à coup sûr moom ay dragon le Je yi en train ko joue mystérieux. suspense parce que le ko on peut de faire ok mais fin tu crois que c'est sûr. Hmm, c'est cool d'autant plus que une des trop pour porter non, loolu Oui, y a ça aussi là. ouais. allô. non beaucoup aussi merci man c'est carré. livre c'est cool. Hmm. Légui, c'est à toi de jouer. à qui est ne me dis pas que tu sais pas comment l'utiliser quand même. bien sûr. Mayday, Mayday, tu eh, m'entends mais... Non, attends. C'est pas comme ça. man yow suis jay perek de Ma Je xam ñu Je bismillah fas jëli toc. Cédric Cédric oui, c'est quoi ça encore kay mom dama ñew xolal pour inviter la Rancard. mo yow iya, na da nga ëppal nak Rancard. xolal je vais te dire trois choses sur toi. et par force da ngay nangu. gisse bu ci ben juumee Rancard bi yakuna suma su da même Rancard. dil. d'accord dil ndax nga may sama jàmm. première assertion. tu es entière pour tout le monde. c'est noir ou blanc. Si, si. Deuxième assertion. Si tu devais choisir entre l'amour et l'amitié, tu choisis l'amitié. Tu as raison. Ah, d'amener mel de rencard de. toute façon je suis ne dernière bi que troisième et dernière assertion. tu t'appelles Leila Thiam. là tu viens de fausser carrément.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

lii moom papa ba dina ko antan damay ragal ñàkk papa de. <laughs> yow kañ nga nekk ragal wóolu sa bopp tamit. mais yow dafa am mu la xàmmee. man waa est-ce sociaux yi man nee naa yow rek lay topp. may tooñ. non sérieux yow paa seen vidéo bi daf may faj. ah papa de mooy sama lépp moom. eh yow jonge nga de. waaye est-ce que soxla nga samay tamit daa ah. nah, mel ni fatt nga fépp de lii nii bien sûr que dama koy soxla fas sax day soxla ko ko bàccili wax nga dëgg mais temps <laughs> Mais gën naa am seen duo bi de mais maaru dara papa ak liggéey bi moo tax léegi moom amatul jot di ma topp ci mes vidéos. mais xaar ko weekend end dig ñu seen dina yang xolu aaw yëpp ya woyunak nag see butéel nah, de yéen tamit bàyyi leen loolu ku jëkkëram nopp rek ngeen foog ne da ko yóbbu ci sëriñ maa ngi lu jànk xam nga man waxi dof ak ruube daf maa neex man maa mel ni ma war a mel ba pare téye sama jëkkër <laughs> xam nga man yàlla dafa dogal damaa direct te damaa sob te neewoon naa bés bu ma la gisee dinaa la poser question bi lan la noonu xam nga réseaux sociaux yi ñooy wax lu nekk te nee na paa sëy ngeen at te amuleen doom te liko wala waral nee nga jasit waye nak du samay wax de te sax nak jasit mo wala ñu fassé sa wujju peccorgo bi ma chérie dinaa la xamal lu tout te bariwul gis nga biiru kenen leruma waye man jojo suma bëggoon ëmb suba suba ma ëmb mais man maa pareegul lolu yombul awma ci droit ah loolu de dëgg la ñoom moom bu woowee ñu wax bu tooyee ñu wax te yow sax dangaa am chance tombe ci jëkkër boo xam dala kaa nangul ah gis nga fii moom ne la sa jëkkër nopp sa jëkkër bu la nobee nangul la lu mu dul nangul ndaayam yaa wax dëgg nag ndeke ma rëccu ma li ma lay toppee de fàtteel loolu yow fi ngay jëm baa doo yàgg xam nga yi nga ma indi dama koy soxla de temps en temps parce que man dama fukkale maadu waaw man naa paa de sutura bi gën a ndaw mënu ma ko am ci kër gi sutura xadim yi gën a ndaw ci kër gi war naa ko romb may wax Anta Awa fan nga tayla say takkaay ndax dafa war a tayla ay takkaayam yaa ngi imaginer wax kàddu yooyu mu daloon ci noppu instant wala ci buso avec ça nga ne yaa ngi topp ci papa tànk papa Ndiouga jege woo sax papa Ndiouga sori nga topp ci ay tànkaam gis nga li ma lay wax ni nag je sais sa loxo yee ngi raf mais dooral ci am salaamaaleykum waaw def dama bëggoon ñu waxtaan si lépp loo xamante ni dama ko war a def si yéen si wàllu bàyyi te matalee ma ko bu fekkee dafa am loo xamante ni dama leen ko war a defal te manqué le ko aussi ngeen wax ma ko. papa manqué le woo dara ci ñun à part affection bi nga xam ne soxla nañ ko suñu digganteeg yow ndax umpale woon manque affection bu yàgg. day tax nit ki ñàkk confiance boo ñu doon gën a jege dina ma neex lool ndax bu boobaa lu ñu yootu leen a jot ko sa barke rek la ñuy sàkku. Insa Thiam. Eh, bul dagg sa mag loolu du respect kenn du ko def dégg nga Insa yeggali. loolu rek la woon papa. Bousso waxal. papa yaa ma laaj waxal. bu nekkee lekk. ak naan lekk yaa ngi koy matale bu baax ak jàngi école bu nekkee loolu moom tën na la wala liggéeyoo dinañ lekk dinañ naan te dinañ jàngi école na kër gi moom suñu kër maam la te loolu rek du waree fi waajur. Bousso. wax naa la yaa ma laaj ñun ay nit lañu dañoo soxla kuy nekk suñu wat di kaf ak ñun di reetaan ak ñun. ku ñuy xamal àdduna balaa àdduna du ñuy xamal boppam. Moussa Bali. papa xale laa dëgg la jigéen laa am naa xel te damay xalaat su ma yeewoo di gis sama yaay si anam yi mu nekk du ma am envie sax dem sëyi. Moussa loolu nga sa xel. pareegoo ba léegi. lu góor bu moroom sax yow laa koy xoolee. yow da ngay xool xale yu góor yi Bousso. ëllëg de laa la wax. yow baax na pare nga doo xaar pare pareegu ya, guma iya, sa taabu góor bi Essa xam ni yàlla da kaa yaral boppam moom soxlawul dara affection kese la soxla si yow waa baax na dégg bu baax xam ni weekend bi duma fi nekk mais incha allah rek bu ma ñëwee dinaa leen ñu toog waxtaan bëgg ngeen ko rek ñu dem si incha allah. maaleykum salaam. Tidiane. Ah, waaw dégg ngeen baax li ma leen wax. dégg nañ ko baax may leen ma waxtaan ak seen mag. jaajëf. Tidiane naka. Ah, waaw si jàmm. yaa ngi waxtaan nan. Hmm. waaw. gis nga tijaan bàyyi ak nu mënti mel bàyyi la danga koy respecté xam bu baax fi nga war a nekk ak moom fi nga war yem ak moom ndax bàyyi du mus a def loo xamante ni daf koy wàññi dara si yow au contraire yaa koy def loo xam daf lay wàññi dara ndax yàlla suñu borom dafa respecté waajur ndax bi mu tuddee boppam tudd yonent bi waajur la si teg kon amul lenn loo mën a def si moom ba am ndam si kawam xar noonu la fonkee waajur yaa ngi dégg da nga dul nuyu sama. man kii jaaxal na ma. yaa ngi dégg bu baax. loolu kese la léegi dama bëgg nga commencer liggéey ci bijouterie ba. du yàq dara si yow si sa wàllu nopp ndax laay mën na liggéeyam te yow yàlla dimbali na la mën nga wàllu calcul.

yàlla suñu boroom yàgg taxawu la te yàgg seen ginnaaw nii. amiin yaa rabbi. dégg naa tam ngay wax dangay dem weekend bi da ngay absenté xanaa da ngay préparé euh, commande soxna Jalika bi. déedéet damay génn damay ànd ak joojo bi Seexu ah lu may def ah oui. waaw ah, baax na. Bakir. teer kañ si. da nga jël pause. ñun du yow. Ah, moom daa mel ni ku dof kii ba mu nekkee xale doful woon. dara daal ko dafa yaroo sago. Ah, dee dimbali ñu bu ñu juutu nag ah. manque rek daa doy sëkk.

Puede ser. Yo no daño fii. Ya? Kii gan la? Kii mënut a réer ci mi. Bàyyam a fi am Ah. Ku muy seet lo Daa lo loo xam loo xam ne léegi ma koy nëbb Bakir. Ah, ma sa ¿Samos mooy yow xadi kañ la dem Côte d'Ivoire te yëguma ko ah. mère man du ma ivoirien de sama yaay mooy ivoirien. yow ma ne ko noppi lan laa la waxoon xam na nga téye sa tànk xadi caam xadi caam yow kaay fii maa ngi seen sa dox bi argaay yow naa nga téye sa tànk waaye comme tax nga sa fit ba ñëw yónneel ma may la soxna parce ma dox ma si caaxaan eh ŋaaŋal mu wadd bu ma ko déggati. mu jël waa yow da ngaa alako mbaa nga namm aceke. waaw maman. yow eh, bu ma ne ma maa feeb du ma sanday du ma ivoirien du ma Côte du def ndànk. dégg li ma la wax bu ma nee ni maman see salopard. Eh, na sa yuuxu yi si kaw laa toll dégg la ngay teel a rek la la mënoo def ndànk yow tiital nga ma waay. Eh. li la. maa ñu jàmm lii sa yoon da cee nekkul nga mel ni ku ne prison. ma ne yoonam a ngi ci baayam la. Hmm. Bakir de moo bëgg jël suma doom ji wanteer ko di ko maye. Nabou da ngay jaay sa doom bi. yow may ma sama jàmm amoo loo jaay amoo muus amoo xaj amoo dara tax koo bawoo. c'est intelligent. salaamaaleykum. waaleykum salaam. nga. yàgg na. eh xam nga lu ma bëgg. Tu dégages. Tu me. Hé, hé Yaram, jàqal. Salopard. Eh, qu'est-ce que ça gâte Nabu defal ndànk. Yow li ma jàmm la yow. Sama safara foofu ngeen gisoo. sama safara tay. sama tampera dama ko wàññee ci bir kër gi faw ma won leen sama bopp Salopa. yow ah léegi yow bandi ga wayu ha da nga bëgg ku la morom du wax ah yow tolloo koo foofu de sa baay moo mën Je ne ma pas. Tu as aimé Je l'avoue, j'ai mmh. aimé. Nice. Si, si. Déjà, me plonger, j'ai tout oublié. dama fàtte ba fàtte sama bopp en plus suñu borom bi subhanahu wa taala ay kéemtaanam dafa dafa doy waar mm-hmm mais est-ce que xam nga ne li nëbbu ci biir est tu sais Leila les voix du Seigneur sont impénétrables Tu ne xam rek da si je ne te le fais pas dire en tout cas j'ai été ébahie mu ci ndox bi dama lépp ressentir lu je me suis évadée. J'ai tout oublié. Mais malheureusement, arrivé au sec, la réalité va me rattraper. Vite, de bidicate. Vite. Comment ça, vite Tu sais, Cédric, Je ressentir li doomu aadama di ressentir amatuma ci dara du mbëggeel du soxor du jalousie du sax feebar duma sax ressentir coono awma benn ressentiment quoi mais attends yow doo yëg dara wala da foog ni doo yëg dara quotidien. ça c'est faux Leila c'est carrément faux et je vais te le prouver ferme les yeux Leila. jamais Yo, mi nga xamné tu es un chipi <laughs> te yàkkamte nga ma <laughs> détrompe-toi man ne sais pas. yow tu may duma dama lay yow nag xamoo sa bopp. mais sérieusement ferme les yeux waxuma nga tricher ferme les yeux. Leila princesse Thiam ndeysaan da ngaa dund lu metti nag jaar fu tar sa kaw ngay lan la lan mo tax mu dal pourquoi dalul keneen pourquoi sun borom teg la coono bi doo sax bëgg di si xalaat xam naa ndeysaan di nga tëdd ba xaaju guddi tiit si ay nelaw souvenir yooyu ñeel te boo sañoon du nekk ay souvenir mais gis nga loolu loolu mënoo si dara ci sa yoon la bokk te ci yow la bokk te du luy dañ yaa ngi gis li ma doon wax sànq yaa ngi ni mënoo yëg dara te sa bët yaa ngi nii taa. Cédric aw ma dara lu may ressentir yëguma dara xoolal lii bu mu amati bu mu amati laa la wax man sax man maa la ubbil parenthèse ba ngay am looy wax am loo may expliqué bu mu amati de lii neexuma. tu sais que ça ne me surprend pas. je soit la première et la dernière fois nga may dund lii. j'en ai absolument rien à foutre de ce que tu me permets ou pas tu te crois tellement maudite que tu n'as ni lépp lu ñëw rek je suis maudite truc. mais Leila Leila ce vous nga as oublié c'est quoi le problème. Il n'y a rien oui moi, c'est bon là. Leila. là, vraiment je t'emmerde on peut y aller. moto. de. bis jabar papa bu amul jabar la ko Wéro sinon droit au but c'est comment avec Leila. Leila ça avance hein ça avance peu à peu tu as fait attention j'espère. yow la nga ma teg. Ne yo nag doo sa quoi à dire naissance hein. avance pas pas comme ni ko waxé mhm. koy a sam dafa ok euh, excuse-moi deux secondes s'il te plaît allô. allô. Tafa. Bousso. Tafa kañ nga ñibbisi. Tafa ba nga demee ba léegi kër gi neexatul. Bousso. papa xale ci Ma sama maam yendoo triste sama yaay amul ko papa bi gën a wéradi di seetlu kenn لا نفسان يندلالم dafa yow yaa lu bëgg nga défaral ma lu ma bëgg nga ñibisi. bu so baal ma may ñaan lu ma manul. ndeysaan xale mais cey bu li ngay waajal vas-y la ferme-toi. ah c'est comme ça. vas-y toi. je la ferme. je démarre. Ibrahima Khalil Thiam. yaay booy noo leen def. Sanday ndey wëri ko fenen. man fa Bintu Ndiaye rek la jur. eh je te signale que tu es devant mon titre foncier tu n'as rien à faire ici. mais. y a pas de mec qui tient. va te faire voir ailleurs. gis nga waxuma la sama buntu kër gi de mais koñ bi ci bopam bëggatuma la fi seen. Je na li ma la wax moy wax ju neex parce que la prochaine fois au Kozwa Mbata tu connais une baffe ça te fera du bien.